est-ce que mënoon na ñoo xam naka nga gisee combat entre Lac de Guiers ak Boy Niang. ah na mooy combat bu neex la ñaari xale la ñuy war bëre eh, le treize yàlla ñu si yàlla yóbbu ñaan si yàlla yàlla yóbbu na si jàmm ñun ñëpp ñu fekk ko eh, yàlla boole ñu ñu bëri si jàmm yàlla may ñu ndam si jàmm eh, su boobaa ñu xam ni sport la rek yàlla moo xam kii daan moo xam kii daanu. kenn lu ma xamul daanu fekk bis boole nga fekk ko si loxo yàlla nekk am solo mooy dañu ñaan yàlla fekk ko ñun ñëpp ñu fekk ko si jàmm ñu bëri ko si jàmm mu jeex ci jàmm kenn ku ne dem seeti leneen ay ñaari xale lañu war a bëre la ak Guédiawaye ay mbokk lañu ay famille lépp lañu kon nag nañ ko bëri si yoon eh, ki yàlla jox ndam nga xam ne la yàlla jox ndam ki daanoo xam ne yàlla la xañ nga dem. wutuwaat leneen loolu programme yàlla la. naka nga gisee état physique ñaari mbër yi aussi. état physique ban Lac de Guiers laa xam parce que moom laa gis état physique am boo ñaa xooluma ko gisuma fi gisuma bon seet a ko ne mais nag xam naa ne aussi ku ñu fay ay millions foo jaar di nga entraîné ba dee en li ko war mi ngi def mais li ma wér moom mooy Lac de moom li ko war lépp def na ko eh, yàlla moo des ak mbiram. parce que entraîné na préparé na lu mu war def def na ko ñun ñii lu mu war def def na ko ñoo ngi toog di xaar le treize ñaan si yàlla yàlla suturaal nu may ñu dem barki yonent bi sallallahu alayhi wa que mënoon nga ñoo wax naka nga waajalee sa mbër mi pour moom mooy entraîné entraîné na lu mu war a entraîné lépp pour programme yëpp def nañu ko lu mu ko san doon def na ko le treize ñëw na léegi li des kay moom mu appelé ko lu mu doon entraîné rek le treize bu Euh, amateur daañu kontaan incha allah daañu xam ni laa de ñëwaan na si biir géew bi te incha allah bëri bi ñu yaakaar ne day yàgg mbaa du yàgg mais amaan na yàlla man dafa bëri bu ne bëri bu gaaw. bu weesoo entraînement si lu ñeel côté mystique nag. ah, ah mystique xam nga ku ñu ñaan kenn la yàlla looy ñaan sëriñ bu mën ñaan yàlla lay ñaan nun ñii yàlla la looy ñaan boo ñaan yàlla lay ñaan yàlla nag mooy xam ko muy nangul ñaanam si nga mystique si nga kon nun duñu bàyyi bëri noonu yi mëntuñu daan kenn ti fu sey na xam nunu ko li am solo mooy doole ak entraînement moom mooy joué si làmb ku amul doole bokkoo ku amul entraînement bokko noonu ñi xam nañ fu sëy na xam nañ ko mais mën na daan mënatuñu daan kenn te amoon na jamono yaakaar nañ ku taxaw si àll si ku taxaw si arène wala man mais léegi mënatuñu daan kenn moo tax ñoom ñaar ñoom ñaar ñëpp da xam naa ne ñu ngi entraîné te aussi suñuy doom lanu ñu leen di wax daal ak seen i supporters lu ñu wax ne ñoo xale yi ñoom ñaar ñëpp xale yu yar lañu ñu leen di wax ñoom seeni i supporters nañu ànd ak yar ànd ak teggin ndax traite ñu bëri si jàmm mu jeex si jàmm ku ne ñibbi si jàmm loolu daal lu leen sant. est que tamit am nga yaakaar ni le treize Lac de Guiers dina mën a am ndam si kaw Boy Niang. xam nga <laughs> toolu ma yaakaar loolu su ma yaakaar woon dama jël combat bi maa taxawal combat bi man maa jël combat bi mu largee waxee ni Boy Niang ma ne ko jëlal Boy moom. xale la day bëri mais nag ku ne daan nga bëgg nag yàlla moo xam koy daan de man xaw ma koy daan de yàlla moo xam mais nag yaakaar laa am sama mbër moom mooy daan ak moom laay ñaan si yàlla mu daan waaye nag yàlla mooy ki nga xam ne ki moo xam moom dunu jinne dunu malak nit donga lanu jaamu yàlla bu ñàkk solo la nu ñaan si yàlla rek yàlla sutural na ma ngeen dem rek yéen def sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi lay jaajëfal jërë ngeen jëfee ñu baax